yow gore woo yow gore woo waaw ça va ça va bi alhamdulilah. waaw non daaw ma fenn daaw ma fenn waaw waaw waaw. toogal toogal ba pare non mais toog pour lan dama am droit man taxaw fii. waaw ma taxaw obligé wu ma obligé wu ma toroxal la. non toroxal ça veut dire mooy lan. waat ça ma sëñ ma wax mu leer. dégg Sénégal la yëpp. police. waaw arrêté waaw c'est de l'arrestation. non damay laaj c'est quoi la motif de l'arrestation. laaj dama la laaj juste rek. amul droit toog fii c'est interdit. du ma mbooloo je suis une seule personne.